waaw muy loo xamante ni bett na ñu bëri parce que liñ daa gis mooy ñoo xamante ni xëy na bokkun temps wala bokkun li ni wut mais bu dee cees nag ñoom ne la ñoom waa Yewwi Askan Wi parce que kii di euh, Babacar Diop nekk maire bu cees ci bannière Yewwi Askan Wi lañ ko falee woon maire bu cees ca ville ba ci élection locale yi ñu génn même si Euh, ku ne xam na ni bi ñu defee investiture yi am na loo xamante ni ñaawul woon na ko parce que ni ñu ko ci beddee wala impliqué woon ko ci. Mhm. parce que dafa constaté il n'était ci ci élection élection législative yi parce que boo xoolee Yewwi Askan Wi bi lay Birame Souleye Diop mi nga xamante ni moom mooy maire Thiès Nord finalement moom mooy tête de liste majoritaire bu Yewwi Askan Wi ci departement bu Thiès. Mhm. donc mu xëy na loolu bokkoon na ci li nga xamante ni waa FDS les Guelwaar à l'époque dénoncé woon nañ ko parce que jàpp na ni donc Babacar bi mu ñëwee Thiès. 2013 ak léegi am na ñu commencé di ko xeex ngir xëy na beddi ko donc moom it xaw na téye boppam à un moment donné defoon ci sax euh, benn sortie à travers quand même les médias. Hmm. Euh, loolu nag bokk na xëy na li indi jaxasoo bi maintenant terewut quand même. battroon na campagne aux côtés de Yewwi Askan moom moo tax le week-end bi fa Sonko jaaree ak les leaders mi ngi woon ci convoi bi mais il considère que convoi bi gàddu rapproché ñu xamante ne quand même mooy euh, waa Ousmane Sonko ñoom ñoo ñu yàq oto bi bëtt pneu yi et cetera. ba mm. mbiri plainte am na ci parce que démb tamit def na benn poste ne mi ngi jëm hôpital après bu fa jógee day dem police da nga xamante mooy plainte muy loo mm. xamante ni quand même. Mm. yéeme na parce que ci investiture yi moom rek moom moo ci jiite ville boo xamante ni. investir loon ko ci li nga xamante kon moom mooy ci yeewu askan wi parce que cinq nga xamante ko ci bëri mm-hmm. ña fa nekk maire ñoom lañ reconnaître suuf Babacar qu'est-ce qu'il explique loolu mm-hmm. booba léegi wax nañ ci mais li ci am solo bu am solo bu amee je pense que au lieu des explications li gën a bon ci principe mooy il faut condamner li nga xamante ni quand mooy violence comme ni ko Aminata Touré mm-hmm. defee rek quand parce que boo nekk acteur ku nekk nga tenir des propos comme niñ ko daan gisee ci jamono Abdou Diouf nga xamante ni naan ay euh, madame Moulin yu kenn xamut mm-hmm. maanaam ay njombo rek quand même c'était vraiment ay campagne bu neexoon loonu mais mm. daawun egg ba ci yenn yenn saa yi même si quand même fitna mm. daanoon ko gis quand même ci campagne élection Sénégal yàgg na ci ADN la boo conquête pouvoir boo koy def am na loo xamante ni xëy na am na jaral na leen ko mais bu monde bi di évoluer nga xamante léegi vous avez les réseaux sociaux am na plateforme yoo xamante mën nga faa wax nit ñi dégg la mm. donc fitna gi mën na mën nañ koo bannir étant donné que bi ñu génnee ci tabaski gi gis nañ président ci boppam mhm. foofu si ñu fi xaar état bi parce que moom moo taxaw ne état bi dina jël ay responsabilités ba nga xamante ne affaire fitna mais nemmeeku nañ ni ah, a responsable de la paire qui après dafa daw te am na ñaari blessé kenn ki ñu ne ci loxo bi lañ ko ki tànk bi lañ ko gaañ keneen ki ci pa bas ventre bi ma nga xew fa la nga xamante mooy ci bunkiling ci région bu Sédhiou donc muy loo xamante ni c'est

élection ko présidentielle nga nekk parce que on mm-hmm. de mandat ñi wax la mal teg ko foo xamante ni finalement mooy tax mm-hmm. nit ñi jàpp ni le Sénégal va changer à partir du 31 juillet or c'est pas le cas très bien Marcel Farba Maoun euh, Chérif ni mu ko waxee euh, ñi ngi wax Thiès mais mm-hmm. Bounkiling également li fa xew au sud du pays doy na waar euh, li nga xamal ne kenn ku bokk ci APR moom moo jël ba fetal tiire ay ay ay adversaire am ba finalement instant yi ñu ngi ci ay jafe na ay coalition yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy dund ci seen biir et que euh, ñëpp ko war a condamné effectivement ñëpp ko war a condamné yaakaar naa ne moom acte bu killing bi moom c'est euh, c'est le paroxysme du de la violence mënuñu mënuñu ko raw euh, li nga xamante ne nit ki day génne ba dem ba génnee gànnaay taal en tout cas fexe ba déclenché ko ci ay ci ay doomu aadama. Mhm. donc euh, ça vole encore très très bas dans cette euh, campagne euh, et pourtant sensibiliser nañ homme politique yi en tout cas nitu diine yi wax nañ ci médias yi wax nañ ci homme politique yi sax ñenn ñi jot nañ sensibiliser ci li nga xamante ne moom mooy violence bi mais malheureusement dafa mel ni on a l'impression que jamono ji Sénégal bu ñu jëmee ci campagne électorale dafay rimer ak violence. c'est mhm. quasiment devenu une normalité Euh, mu di loo xamante ne dañ ko war a ko war a ñaawlu donc bien évidemment benn fait bi nga xamante ne c'est assez inédit tamit mooy benn la querelle intestine buy exister ca ca Yewwi Askan Wi. Mm-hmm. Euh, quand même le maire de Thiès c'est pas rien euh, bi nga xamante ne dafa am ay friction ak waa en tout cas partisans Ousmane Sonko yi. Mm-hmm. on espère que le linge sale se lavera en famille en bon gentleman euh, que euh, dinañ en tout cas dépasser li nga xamante ne moom mooy étape bi nga xamante ne ça ne mm-hmm. euh, la quatorzième législature que ñu ngi doon ngañi li nga xamante treizième législature si déjà les prémices sont annoncées par cette future quatorzième législature. Mm-hmm. on se dit qu'on a de beaux jours devant nous encore malheureusement. merci beaucoup Marcel Farba Maroun euh, Chérif Dia léegi léegi ñu jàll ci leneen muy un jour au Sénégal un jour dans le monde. bis ni tey. Euh,